donc bu fekkee xam nga ci sa biir wax da nga da nga contradictoire nee nga Macky Sall daf la sous-exploité ensuite nga ne yow am nga une expérience dans la gestion euh, du pays pendant douze ans euh, donc yow mun naa jàpp ne vous êtes totalement comptable du passif et de l'actif ah, du bilan de foofu de, de, foofu dama lay fekk si à cent pour cent totalement man Abdoul Aziz lu ci am ci passif mais ma tuuti ma to posé nga question mhm. bàyyil ma tontu askan yu déglu sama tontu yow da nga ni Abdoul Aziz Diop seriez-vous seriez-vous totalement comptable du passif et de l'actif du président Macky Sall xam nga mooy tontu bi waaw mooy tontu bi gis nga tooxi doona bu am ci nguuru Macky Sall ak ngëneel bu am ci nguuru Macky man Abdoul Aziz Diop bu ñu ma dabee ni la ni ma responsable nga ci dama naan waaw waaw responsable laa ci. waa léegi sa sa sa sa audio bi génn. Euh, ngay jox sa bopp lu bon rôle. di yedd président de la république nankaan bàyyil pexe pexe moo la indi ci ci ci ci ci situation boobu euh, douze ans après ngay doog a gimmi douze ans après ngay doog a rendre compte que ni ñu yoree woon mbir yi xëy na lépp jagu ci douze ans après déggoo ma ne du yow xam nga léegi da nga may accuser de contradiction que da wax damay wax ñaari wax yu waroo. waaw mais ñaari wax yu waroo yow yaa ko wax. yow yaa ni président loo wax sànq da nga wax sànq ni Abdou Aziz est-ce que yow passifu ak actifu maanaam li baax ci nguuru président Macky Sall ak li bon ci nguuram est-ce que Abdou Aziz yow fas yéene ngaa jàpp ni. responsable nga ci ma ne la responsable laa ci à 100 pour donc bul génn sa der. waaw mais ma tuuti mais ma tuuti ma wax dëggu goo ma raxas sama der. ah kay non non dëggoo ma raxas sama der. léegi nag dafa am benn nuance boo xam ne nii su fekkee ni journaliste bi ngay woote matte nga ko. il faut nga toppatoo ba mu mat sëkk nag. il nga toppatoo ko. waaw ah, dama ko mate ba mu mat sëkk nag. d'accord naa ko ah. comme comme da ko mate ba mu mate il faut que am loo toppatoo Abdoul Aziz bu la nee lépp lu ñu ni dafa ñuul ci yorinu président Macky Sall responsable ci. lépp lu ñu dafa weex ci présidence Macky Sall responsable ci. donc loolu bu jeexee yow sañ nga en tant que journaliste. ki nga invité fii mu toog ci sa plateau di waxtaan ak yow ba pare soxla njiital réew mi jiitu ci réew mi mais kooku sañ nga nag dem lañ mbat ay mbiram ni mais moom comme nee na passif bi d'accord na ci maanaam rëq-rëq yi responsable la ci li li rafet responsable la ci mais moom la ci ñuul lan moo ci responsabilité lan la def lu ñuul kooku am nga droit dem gëstu ji ko. mais balaa ñuy dugg ci loolu. waaw dafa ndànk rek. dañuy waxtaan dañuy waxtaan dañuy ah. waxtaan. am nga droit dem gëstu ji ko. man dama lay mettre au défi mettre au défi n'importe quel journaliste boo xam ne nii gannaaw bi mu déggee Abdoul Aziz Diop wax ni passifu Macky Sall passifam la actifu Macky Sall actifam la waaye ci biir passif bi lan la ci def lu ñuul moom Abdoul Aziz Diop bi soxla sama baatu réew kooku dafa war. ma ne balaa balaa même ma tuuti même ma tuuti loolu dafa war ci wàllu gëstu. waa léegi ki soxla baatu réew dafa am sa naataangoom. bu xereñ ci wàllu journalisme bu ci sori waaye dafa am cat ndax cat dañ sama sama ndey ji ma jur soxna astuka radiallahu taala euh, sama soxna astuka radiallahu dafa wax ni cat bu la reyul daf lay semmal bu la reyul semmal la gis nga Cheikh Yérim Seck man ci sama taxaw seetlu ci taskatu xibaar jàngale ci école bu mag bu ñuy tasee xibaar ba jàngal la fa yow mi toog fii di waxtaan ak man jàpp naa ni journaliste gënu ko xereñ ci réew mi ñu nekk loolu lu tax boo déggee ma wax ko mooy Cheikh Yérim Seck dama ko dégg mu ni képp ku bëgg yor sama réew man Cheikh Yérim Seck déetu ma nelaw te lañ matuma say mbir ndax yaa soxla sama boppu réew bi ma bi ma jógee ci wax la ni man Abdoul Aziz passifu Macky Sall dama koy revendiquer revendiquer actifu Macky Sall waaye lañ ñuul ca lañ ñuul ca ca loola yow en tant que journaliste man mi soxla sa bopp réew war nga ko lañ mbat ni ma Abdoul Aziz yaa fi def tooxi doone bi yaa fi def tooxi doone bi kon waroo mën a yor réew. alors Aziz loolu dama ni la. soo ko ma ma jeexal ma jeexal foofu Aziz la démarche man maa ko yor. ma jeexal ma jeexal foofu man maa ma jeexal foofu maay joxe euh, fil conducteur ma daaneel foofu su may <laughs> daaneelee foofu mooy. Ah. je mets au défi bépp euh, taskatu xibaar te loolu mooy seen métier. nga ni Abdoul Aziz bii ba ci Cheikh Yérim sekk bi nga xam moo wax loolu mu dugg samay nopp Abdoul Aziz Diop bi bëgg a nekk sama bopp réew ci yorinu réewu président Macky bi mu nekkoon ci cabinet lan la def moom lu mu warul def lu waroog li réew di xaar ci njiit